ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكيني دغلو في déglu سفينة FM 98.2 seen mbokk seen xarit alxaaji Oustaz Abdoulaye Ndiaye del siwaat na beneen yoon ci waxtu wi waxtu wi nga xam ne ci lañuy ñuy fàttalikoonte gi yéen seen émission bii di xasasul ambiya te moo di rekk waxtaane jaar-jaari yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ñuy sant borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni mo nu mayon ñu fekke aljimaa bi wessu mo mayat na ci mbaxam ñu fekke wat ko tay ala kulli hal ñu koy ñaan mu yag no may ñu yak fekke ci daraja yent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu di am bekte lol di am contante lol ci dajawat ak mbok yi ah di fàttali ak yéen seen émission xasasul ambiya fa tabarakallahu di sant mbokk yi nga xam ni ak di ndokkel ak di nuyu mbokk yi nga xam ni fu waxtu wi rek ñi ngi toog di ñu bàyyi xel fa tabarakallahu ngir bëgg am lu ñu jël jariñoo ko ci seen émission bi di nuyu tabaarakallaahu borom kër gi di Thierno Hamid Yoro Bane di ko ziar booleeg di ko ndokkeel bu baax ci voyage bu am solo bi nga xam ni ci la jóge te moo di e, baytullaahil xaram waaye itam di ziar bu baax alxaaji imam Moussa Gueye sunu xarit sunu soppe moom itam ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel ci tukki bu am solo boobu fa tabaarakallaahu di ziare itam sunu mbokki ujaaj yépp nga xam ni ñoo bàyyi fii ci réew mi di Sénégal ak euh, fu waay mën a bàyyi ci àddina bi rek demoon mottali ji sa juróomeelu ponk ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla wér ak wérle waaye itam ñu ngi sàkku ci ñoom ñoo ñaanal nu tabaarakallaahu ñaanal sunu réew yàlla wàcce fi jàmm yàlla yokk sutura si yàlla yokk wér gi ci umu islam bi yëpp fa tabarakallahu di ziyaara itam aja soxna keni tabarakallahu fële ca amoo cinq sunu xujaaj boobu ñu ngi ñaan yàlla na yàlla nangu xaj gi lu mu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu te ñëpp ñu bokk ko waaye duna fàtte mukk tabarakallahu aja caane siise Pelece ci amo kat momi tam ñu ngi koy ndokkel bax ci eh, tukki bu am solo bobu di ndokkel itam tabarakallah aja ami ko lefal fele ci amo sank tabarakallahu di ñaan rek mu ñaanal nu ko ñaanal yalla may ko hajjan mabrur te modi di gu nangu wa sa'yan mashkur way tam wa zanban baghfur lolu yomb na borom subhanahu wa taala yang na yàlla defal len ko ñom ñep dunu fatte mukk tabarakallahu Hadja tabaarakallaahu ndax soxna nday Xawa Guèye nekk fële ca amoo siis maa itam jóge ca dëkk bu sell ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar tabaarakallaahu di leen ndokkeel Hadja tabaarakallaahu maama Kanji tabaarakallaahu Hadja nday Demba Seck fële ca Malika eh, tabaarakallaahu soxna Sall fële ca Kër Massar sunu xujaaj yooyu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ak mboolem rek fu waaye bawoo. tabaarakallaahu demoon mottali ji sa juróomeelu ponk eh, di nuyu nag tabaarakallaahu soxna tabaarakallaahu naar saw nekk fële ca cité enseignant ñu koy ziar di ko ndokkeel di nuyu sunu xarit sunu soppee soxna mami tabaarakallaahu maymuna tabaarakallaahu ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel mooy itam tabaarakallah dana fàtte mukk soxna Adem Dieng fële ca amoo fële ca tabaarakallaahu cité eh, Aline Sow fa tabarakallah ñu ngi koy ziar bu baax dana fàtte mukk tabarakallahu mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp eh, ñu ngi bàyyi xel baax soxna isa Fall soxna Cera Jaxate Adja Maymuna Diop tabarakallah fele ci parcelle eh, unité 14 mer Ndioufa ñu gën koo xam ci Adja Maymuna Adja nagoy jallo Adja Reki jallo Adja Fatimatu Cissé Soyin Alika taksiman tabarakallahu Adja aja Jallo, ñu gën koo xam ci madame Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax duñu fàtte mukk góor gi ci yoof duñu fàtte mukk soxna Aminata fële ca Pikine duñu fàtte mukk tabaarakallaahu Mbay Babacar Ndiaye Alxasan Fall mbokk yi ca Géejawaay tabaarakal ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi ziar itam tabaarakallaahu mbokk mu baax nekk fële ci Kër Massar di euh, tabaarakallaahu Mohamed Talla mooy itam ñu ngi koy kel bu baax a baax a baax fa tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq ak taysir E, ñu ngi ni itam tabaarakallahu e, mbokk yele e, nekk ca tabaarakallahu géejawaay ñoom ñëpp di ay soppe ak ñële nekk ca tabaarakallahu amoo siis ñu gën koo xam ci Abdourahmane Traoré di sëfooru taxi yooyu tabaarakallahu nga xam ne ñu ngi bàyyi xel baax ci suñu émission xasasul anbiya du ñu fàtte mukk ndongali gay tabaarakallahu muntaxaa gay tabaarakal ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar bu baax ci seen tabaarakallaahu julli gi ñuy jugle eh, mu mel ni tabaarakallaahu ñu ngi eh, nangu dogalu borom bi subhaanahu wa taala di jaal tabaarakallaahu eh, sëriñ jibo laytika tabaarakallaahu moom itam di ko ñaanal yàlla defal ko mu xippee ji aljana di ñaan yàlla na ko yàlla jéggal te ko yàlla na yàlla dolli ko ay leer fa mu tëdd di ñaan itam tabarakallahu sunu maam ju baax ji nga xam ni moo fi jógewante démb tabarakallahu mbokk yépp seen xel dem ci moom di maam Abdul Aziz ad Dabaax fa tabarakallahu ca yarba ca toroxlu ga ak ca jikko yu am solo yi nga xam ni Sénégal duñu dañ mukk di ko fàttali ndax dafa nekk ko xam ne dañ ko jëmbat ci xoli jaam yi waaye jëmbat ko ci xoli àddina bi yépp fa tabarakallahu ba tabaarakallaahu dara waralu ko ay jàngaleem waaye itam ak uh, bokk yi nga xam ne doon na ko bokk ak uh, réew mi ak àddina bi yëpp ci lépp la man doon bu dikkee mu joxe ci xalaatam yooyu moo tax mu nekk koo xam ni kenn dootu ko fàtte bi ilaa yawmi diin tabaarakallaahu mu nekkoon koo xam ni uh, yaakaar nan ni ak dëggoom tabaarakallaahu bokk na ci leen ko doon man di seedeel waaye itam bokkoon na koo xam ni muxlis la maanaam ku selloon la ba noppi doon sellal tabaraka lawte xam nga al ixlaas dafa nekk am solo waaye moom xame woon nañ ko mu nekkoon koo xam ni ku sell la woon waaye itam ku daan sellal la tabaraka lawet xamoon na itam mu'min kaamil la maanaam ku gëmoon borom subhanahu wa taala ndax muslim am na waaye mu'min dafa nekk lu jafe waaye nekkoon na muslim waaye tam nekkoon na mu'min nekkoon di julit waaye nekkoon ku gëm borom bi subhaanahu ci jikkoom yu am solo yooyu ci la nekkoon di eh, ku amoon tabaarakallaahu taar ci kanam boo ko musaa xool rek xam ni kii tabaarakallaahu eh, ku yàlla baaxal la waaye nekkoon aalim te mooy ku am xam-xam waaye xam-xamam itam nekkul woon xam-xam boo daf ko jëloon rek tabaarakallaahu daal di koy cëroo waaye dafa nekkoon xam-xam boo xam ne ilman naafia la mooy xam-xam bu jëriñ ndax daf ko doon bokk ak àddina bi yëpp tabaarakallah waaye it nekkoon koo xam ni arib la ma maanaam zu aqlin ku sunu borom mayoon xel la waaye xelam itam doon na ko kon it tabaarakallah bokk na ci ay jikkoom kana sha'ir mana nekkoon koo xam ni bindkat la maanaam woykat la waaye itam lim doon way dafa nekkoon way yoo xamante ni ah, maanaa ñëpp dañ ko doon jariñoo ci wàllu arab daf doon feeñ wàllu bayaan bi wàllu arut bi yëpp daf doon feeñ ci ay wayam waaye nekkoon koo xam ni tabaarakallaahu eh, ay wayam dafa nekkoon loo xam daf doon jaxase arab bi ak wolof bi di sóoraale ki nga xamante ni dégg na arab waaye itam di sóoraale ki nga xamante ni dafa déggul li nga xamante ni moo de arab te mooy olof la dàmp moom daal nekkoon koo xam ni fa saaxal nekkoon ku sunu borom ficci woon làmmiñam tabaarakallaahu loolu itam feeñoon na ci am góor gu baax googu di baax Abdul Aziz ad Dabaax yàlla fecci woon làmmiñam lool ba mu wax rek fa tabaarakallaahu nit ñi daal di koy mën a dégg loolu nag nekkoon jagle borom subhaanahu wa taala gum ko jaglelon fa tabaarakallaahu mu nekkon lu am solo waaye nekkon ko xamni ku soppul la won wa ku soppulu ko xamni ku ko gis rek da koy sopp da di koy bëgg mo xam julit la mo xam itam ci benen diine la bokk bu diine l'islam waye ñoom ñëpp soppon nañ ko bëggon nañ ko lol fa tabaarakallaahu mom itam nekkon ko xamni muhibban lil umma ku soppon xet wi la waye itam ku soppon askan wi la waaye tam ku bëggoon tabaarakallaahu ay woy juróom lan tabaarakallaahu nekkoon koo xam itam ku bëggoon euh, tabaarakallaahu fa mu jokk la muy Cheikh Ahmed Tidiane euh, Cherif ndax ku daan bàyyi ku daan bàyyi xel la waaye itam ku daan bàyyi xel sunu maam jee ca Fuuta di Cheikh Al Omar Al Fuuti daan bàyyi ko xel daan ko bàyyi xel lool ca ay jàngaleem tabaarakallaahu nekkoon koo xit daana ko roy lool ci bari tabaarakallaahu nekkoon itam tabaarakallaahu ko soppoon ay magam tabaarakallaahu ku ci mel ni Aboubacar Sadiq Aboubacar Sy tabaarakallaahu ku ne xam na ni mu daan ko cité ak ni mu ko fonke woon ak ni ko bàyyee woon xel moom daal tabaarakallaahu ku soppoon itam ay kër yi diine yi nekk ci àddina bi la wala bokk yi nekk ci senegal fu mu mën di doon muy kër gu mën na nag bàyyi woon na la xel amoon na alaaxa maanaam relation bu am solo boo xëy doon noo ko doxal seeni diggante loolu nag nekkoon loo xam ni fa tabaarakallaahu ku dul sang rek mënoo loolu fa tabaarakallaahu kon mboolem këri diine yi nekk ci tabaarakallaahu Sénégal ñoom ñëpp seere la nañ ko ak oyofam ndax kaana mutawaadi dafa nekkoon ko toroxlu ko wàcce boppam koo xamante ni looy xëccoo ak moom bu dee ci wàllu daraja mu baaw ak yow bu dee ci leen itam mu baaw ko ak yow loolu tabaarakallaahu nekkoon na euh, li nu mën a jàngat ci moom waaye it nekkoon na koo xam ne itteem yëpp moo di ittey réew mi gis nga testament yu bari yoo xamante ni bind na ko tabaarakallahu rawatina bi mu jox Abdoul Aziz Mbaye tabaarakallahu turandoom mu way ko arab bi feeñ mu way ko olof bi feeñ yooyu nekk ay jàngale yoo am solo yoo xam ne ku ko dégg rek mën caa jëlee tabaarakallahu njëriñ loolu fa tabaarakallahu mag ñu mel noonu tabaarakallahu ci réew mi la na soxla même euh, bu fekkee sax nekkuloo Eh, di koo xam ni kilifa nga ci wàllu googu waaye foo mën di féete rek danga nga war a bokk ci nga xamante da nga war di jariñ sa réew waaye danga nga war a bokk ci ñiy jariñ sa sa sa askan danga nga war a bokk ci ñiy jariñ tabaarakallaahu àddina bi mbokk yi di jariñoo say xam-xam di jariñoo say xalaat loolu mooy li am solo fa tabaarakallah waaye xamoon nan ko ci bi ni da mujje rek moo di eh, li ko doomam jooju seedeel di maam Osman ni moom daal li alquran di wax ni waabud rabbaka hatta yatiyaka al nee na seetlu woon na ko ci baayam boobu te mooy ah, nekkoon ko xam daf doon jaamu boromam ci biir ak ci biti ba li nga xam ne moo di almor te mooy dee dikkal ko loolu nekkoon fa tabarakallahu lu am solo mu mel ni loolu rek la ñuy xala xalaat loolu rek lan war a xalaat loolu rek itam lan di war di bàyyi xel nekkoon koo xam ni ay ndénkaaneem mooy nan jaamu yàlla parce que xam na ne jaamu yàlla moo fi nekk waaw ndax bokk na ci émission bi nu mujjoon a tëral may nit ku nekk war na bàyyi xel boromam waaye itam war na bàyyi xel moromam waaye itam war na bàyyi xel boppam fa tabaarakallaahu nekkoon lu am solo kon bokkoon na ci ay dénkaane noonu jàmm yàlla te it jaamu yàlla rek moo fi nekk tabaarakallaahu ku jaamuwul yàlla jaamu leneen waaye ku jaamuwul yàlla ba ëllëg nga dajeeg sa borom ah tabaarakallaahu da nga xam lan ngay lay te nag saw lay du jub ndax jaamu yàlla moo tax sunu borom wàcc na fii ci àdduna e, bokk na ci ay ndénkaaneem ñu bàyyi fo waaw ah, bàyyi fo te ku ne xam na ni fi toll nii ci sunu réew mi fami bari na lool caaxaan yi bari na lool te fo it nag dafa jurul benn njariñ xanaa safaan rek lay jur moo tax bokk na ci ay ndénkaaneem nee na ñu bàyyi li nga xam ne moo di fo bokk na ci ay ndénkaaneem ñu bàyyi parparloo même bu ngeen bo bokkul ak nit ki benn ndey bu ngeen bokkul benn baay bu ngeen bokkul benn parti bu ngeen bokkul benn tareexa bu ngeen bokkul benn jubluwaay waaye itam wërta tax itam ngeen di parparloo ci ay mbir yoo xamante ni daanaka safaan rek lay jur kon gis nga parparloo bokk na ci lim doon dénkaane ni nanu ko maytandiku tabaarakallaa bu baax waaye itam bokk na ci ay dénkaaneem nanu bennoo waaw nanu bennoo al gis nga bennoo dafa nekk lu am solo bennoo di xalaatandoo di yëkkateendoo di tëralandoo dafa nekk lu am solo gis nga li ñuy wax al ittihaad li muy jur mooy al quwa te moo di am kartan am doole moo tax bu bennoo amee rek fa tabaarakallaahu lu ngeen song man koo daan waaye su bennoo amul ay woote am daanaka lu ngeen song du ngeen ko daan parce que da di néew kartan moo tax mbokk ma tabaarakallaahu ba ko sunu borom dénkee ak njaboot ma nekk ak ñoom fa tabaarakallah di dund ak ñoom ci kër gi ba ma demee ba gis ni moom kat eh, amatul yaakaar ci ak nekkam ci àdduna maanaam ak dundam fii ci àdduna dafa woo njabootam tabaarakallaahu wut loo leen ay bant tabaarakallaahu dajale ko ba mu nekk aw say kenn ku nekk ci doom yi mu jox la ni la dammal nga damm damm waaye doo ko mën a damm ba doom yi daj mu daal di tas li nga xam ni moo di say wa kenn ku nekk mu jox la benn bant ni la dammal boo dammee rek tabaarakallaahu bant ba ni tëllit daal di mu ni lii nag am njàngale la moo xamante ni mu ma leen bëgg a wan rek la dama leen di wan ni bu ma fi jógee sama ginnaaw li ma leen di dënk moo di ngeen bennoo li ma leen di dënk mooy ngeen jàppoo tànk yéen a ngi jàppoo mel ni aw say tànk yéen a ngi bennoo mel ni aw say kenn du mën ci yéen dara waaye gis nga bu ngeen tàqali ko rek fa tabaarakallaahu eh, ku jéem ci yowoon yéen rek daal di mën ci yéen dara même sax loolu misaal yi bari na bu fekkee yaa ngi seetaan li nga xayma di documentaire nga xool rab yi àll yi nekk ci àll bi sànn di dox eh, fa tabaarakallaahu eh, rab yi nga xam ni moo di buuru àll ñu tudde ko moo di gaynde bu fekkente ni eh, tabaarakallaahu dafa jug pour daq li nga xam ne moo di rab yi rab ba nga xam ni moo wëlbatiku jaxasuwul ak rab yi rek tabaarakallaahu mooy gën a yomb a jàpp karab ya nga xëy danoo bokk aw say àndandoo du man parce que daf leen di ragale xel mu mel ni kon fa tabaarakallaahu kon bokk na ci lim doon dénkaane moom suñu maam ji moo di al ittihaad te moo di bennoo ndax bennoo ci ngay amee xuwa te mooy kartan ci ngay amee ak dëgër laay waaye bu bennoo amul rek tabaarakallaahu eh, doo mën a am doole kon ñu ngi ci woo mboolem waa àdduna bi yëpp tabaarakallaahu mboolem waa senegal yëpp nanu gën a bennoo ndax nanu gën a bennoo ci bennoo googu ci la ñuy daane lépp lu nu song waaye na ci euh, tabaarakallaahu ay ndénkaaneem nañuy diisoo gis nga alquran bañ na ba sax tudd aw saar suratu shura te mooy saaru diisoo moo tax lépp lu mën di doon dañu koy waxtaane bu nu ko waxtaanee rek diisoo xalaat mën naa génn waaye su fekkente ni waxtaan amul diisoo amul danaka xalaat bu euh, bu mën a dëgër dëgg-dëgg du mën a am loolu nag nekk loo xamante ni fa tabaarakallaahu euh, bokkoon na ci ay ndénkaanam yoo xamante ni fii may wax nii daal mooy bis bu réew mi tolloo ci ay jafe-jafe wala ñu toog toll ci ay fitna wala ñu toll ci ay jafe-jafe bu mu mën di doon ci jafe-jafe yi xel yépp dafay daal di dawaat wëlbatikuwaat delluwaat ci sunu maam ji baax jooju ngir wane rek ni tabarakallahu benno dafa nekk lu am solo kon loolu ay e, ñaax la yoo xam ni moom dañuy ñaaxaat sunu mbokk yi pour bëgg ñu gën a bennoo pour bëgg ñu gën di diisoo bokk di ay xalaat waaye it bokk di jaamu yàlla waaye itam bàyyi li nga moo di parparloo waaye itam li nga fo ndax loolu dafay daaneel am réew dafay delloo ginaaw waaye du jëmee kawanam mukk li nga xam ne moo di am réew te nag fi mu toll nii sunu borom nee na afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa waaw ndax yéen da ngeen da jorte ni dama leen bind rek wàcc leen ci kaw suuf ngir fo déedéet lay ba mooy yàlla wunu ci kaw suuf ngir fo danoo wàcce ci kaw suuf pour ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduni borom bi subhanahu wa taala nee na bind ma ak nit lu dul ñu jaamu ma kon mbokk yi jaamu yàlla dafa nekk lu am solo jaamu yàlla dafay tax a mucc fii waaye itam dafay tax a mucc fële fa tabaarakallaahu mu mel ni kon loolu am na solo lool ab ubbi la woon boo xam ni mun ñëwun ko woon a bañ a ubbee euh, lay taayale ko sunu émission bii di xasasul anbiya te moo di waxtaane jaar-jaar yonent yi ndax gis nañ ni al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ah, ñoo fi wuutu yenent yi kon bu fekkente ne nii nuy waxtaane yenent yi seeni jaar-jaar te ñu jóge fil bu yàgg yàgg yàgg kon laaj na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw suuf te amee woon taxawaayu taxawaayu yenent yi léeg-léeg ñu mel ni ki ñooñu bu seen bis dellusee ñu taxaw rek fàttaliwaat leen ndax kenn ku nekk mën a waat ci tabaarakallaahu ay njariñ mën a xamee itam fi ngay teg say tànk ndax fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin fa tabaarakallaahu e, mu mel ni xam ngeen ni xasasul anbiya moom dafay jël yonent boo ca waxee kemta lay kattan la nga xam ne xalaat na ni mbokk yi danañ ko mën a jariñoo mu ne ko fi kupp nag bàyyi ko fi duggaat ci beneen yenent gis nga fi ñu tollante moo di Moussa alayhi salaam jàngat yu am solo yi ci def yëpp tabaarakallaahu doon wane rek ni Moussa alayhi salaam ku sunu borom baaxal la ku sunu borom sellal la ku sunu borom tànn la ci biir yenent yi def ko mu nekk yenent boo xam ni bokk na ci ulul azmi min ar-rusuli ñi gën a am volonté gën a dogg ci yenent yi loolu nag nekk loo am solo ware na ko ci tabaarakallaahu daawam te mooy ci woote bi muy woote ware na ko itam tabaarakallaahu ci eh, tabaarakallaahu wooteem ba ñëpp xam ni eh, ku dogu la moom inti yàlla Moussa alayhi salaam ci biir loolu nag ci la ñu jële beneen yonent koo xam ne mooy itam ci rang bi la bokk waaye itam bokk ñi nga xam ne yàlla yónni na la mu di Yuusuf alayhi salaam yusufa alayhi salaam tabaarakallaahu histoire am siiw lool histoire am itam yaatu lool waaye itam mu nekk koo xam ne eh, boroom xam-xam yëpp boo ne yusuf rek seen xel am ci yum dem yu bari lool fa tabaarakallaahu eh, ba tax na yusufa alayhi salaam nekk koo xamante ni bu nu ko waxee rek sunu xel dana dem ci maamam ibrahim ma alayhi salaam moo tax euh, ñu ubbee yusufa alayhi salaam tabaarakallaahu wane ne yusufa alayhi salaam euh, ki nga xam ni moo di way juróom wu góor moo di yaqub yaquba moo di way juróom wu góor maanaam mooy baayam moo tax ñu ne aturiduuna an taarifu man huwa sayidina yaqub alayhi salaam euh, fekkente ni yéen a ngi ànd ak ñun e, bëgg xam kan mooy Seydina Yaquba alayhi salaam e, bëgg xam itam lenn ci Yaqub ñi jur ndax mun a wax Yuusuf alayhi salaam te doo tudd ki nga xam ni moo di way juram tabaarakallah moo tax ñu ne kon bu fekkee bëgg nga xam ki nga xam ne moo di Seydina Yaquba alayhi salaam dama lay wax rek ni la huwa nabiyullahi yaqub bun ishaq bun ibrahim nga yaqub alayhi eh, mooy doomi ishaq ishaq mooy doomi ibrahim alayhi salaam wasmuhu aydan israil moom itam ñaari daan ko si yuusuf alayhi salaam mooy doomi mooy woy jur kon yuusufa alayhi salaam ñu ne kon wa kullu anbiyain bani israil kaanu min naslihi nee na e, mboolem yenenti bani israil yi ñoom ñépp ñu ngi bawoo ci e, silsilaam ba na ki ci mujj sax moo di isa alayhi salaam mu mel ni kon bu fekkee bëgg dina taxaw tuuti def ab leeral ci njëlbeen da nga gis ni yenent yàlla ibrahim alayhi salaam yàlla mayoon na ko ay doom waaye tam laqad anjaba nabiyullahi ibrahima alayhi salaam waladan min sarata fa sammaahu ishaqa yenent yàlla ibrahima alayhi salaam yàlla mayoon na ko doom bu góor doom bu góor boo xamante ni ki ko jur moo di soxnaam si ni wax Sarata eh, doom bu góor boobu mi ngi ko tudde woon Isxaqa kon Isxaq tabaarakallaahu moom la yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam amoon ci soxnam sii nga xamante ni moo tudd Sarata ñu wala ma kabira Isxaqa jaalahu llahu nabiyan min al anbiya mbokk yi bi nga xamante ni isxaqa màgg na maanaam majeur na nekk na di waxambaane e, nekk na di mag daal tabaarakallahu sunu borom subhaanahu wa taala defalati na ko li nga xam ne moo di teraanga te mooy def na ko mu nekk di yonent ndax nag yonent taraanga bu rëy la def na ko mu nekk yonent bokk ci yonent yi tabaarakala Isxaq moomu nag wax naa la ni la e, yonent yàlla Ibrahim moo di woy juram bu góor waaye wa tazawaja Isxaqa alayhi salaam Isxaq moomu bi mu demee ba toll ci moom itam di mag tabaarakallaahu yàlla defal na ko moom itam. mu daal di deñ ci soxna bi ma amee soxna itam yàlla dogal na soxnaam soosu moom itam mu daal di am doom mu tudde ko yaquba kon gis nga kon ibrahima alayhi salaam moo jur isxaq isxaq moo jur yaquba waaw moo jur yaqub yent yàlla yaqub nag alayhi salaam mooy ki nga xamante ni moo jur yent yàlla yuusuf alayhi salaam mii nga xam ne moom la ñu sóobu tey pour bëgg waxtaanee ay mbiram kon daal di nga seen kon yuusufa alayhi salaam ah, fa aasha yaqub bayna nabiyayni karimayni wa huma jadduhu ibrahima alayhi wa abuhu ishaqa alayhi salaam fa tabaarakallaahu gis kon yaquba alayhi salaam mi ngi bawoo ci ñaar ñu tedd ñaar ñu sell ñaar ñu yiw ñaar ñu maanu waaye itam ñaar ñoo xamante ni yàlla def na leen ñu nekk di ay yenant ñaar ña ñu kan la ke ca jiitu mooy way juróom wu góor moo di isxaq isxaq mu jur yaqub kon yàlla dogal na mu nekk di yenant waaye itam ki nga xam ne moo jur baayam moo di yent yàlla ibrahim alayhi salaam ibrahima itam nekk di yenant kon gis na kon baay ak doom ak maam ñoom ñu nekk di ay yenant loolu kon yàlla mooy jël famille ku ci nekk moo amula lu mu la yenkee maanaam amula lu mu la baaxee waaye gis na ni lii de eh, tabaarakallaahu tiraanga bu rëy la boo xam ne yàlla mi ngi ko baaxee yent yàlla yuusufa alayhi salaam baayam nekk di yenant waaye itam maamam itam nekk di yonent gis nga boo seetloo sax histoire màkka ak li ci aju yëpp daanaka kon génnul baayam ak maamam tabaarakallah muy baayam ak maamam bu góor ak maamam bu jigéen waaw ndax bu nu waxee baayam moo di Isxaq bu nu waxee maamam moo di Ibrahim kon Ibrahim maamam bu góor la waaye itam Saarata mooy maamam bu jigéen fa tabaarakallahu lool nekk ay jàngat yu am solo lool fa tabaarakallahu loolu wane nag ni wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yacha mu ne kon tiraanga daal nekkul ci loxol kenn ku dul loxo sunu borom subhanahu wa taala moom mooy seet ku ko neex rek mu defal la tiraanga tiraanga nag dafa yaatu alal tiraanga la wir tiraanga la xam-xam tiraanga la tabaarakalaw askan sunu borom mën na la askan boo xam ni bu set wicc la loolu itam tiraanga la kon Yuusuf alayhi salaam mi ngoog bàyyi ko ci ñaari yenent yoo xam ni tabaarakallaahu ñoom ñëpp ay yenent lan waaye itam bokk ci ñi yàlla subhanahu wa taala yónni mu mel ni kon yusuf alayhi salaam daal tabaarakallaahu ma baayam daal moo di ishaq kon baayam daal moo di yaqub ma ñu ne fa aasa yaquba bayna nabiyayni karimayni wa huma jadduhu ibrahima alayhi salaam wa abuhu ishaqa alayhi salaam kon feeñ na ni yaquba alayhi salaam mi ngi bàyyi ko ci ñaar ñu sedd waaye tam ñaar ñu tedd tey di moo di maamam ibrahima alayhi salaam ak baayam ishaqa alayhi salaam mbokk yi feeñ na ni wala ma kabira yaqubu akramahu llahu bi niamati nubuwa fa saara nabiyan kariman alayhi salaam mu ne kon yaaquba alayhi salaam e, feeñ na ci histoire ni yàlla terale na ko xéewalu nekk di yonent waaw yàlla terale na ko xéewal gu te moo di mu mujj rek nekk di ab yonent moom yaaqub yonent bu tedd lool sell lool fa tabaarakallah yaaqub alayhi salaam Eh, tabaarakallaahu kenn mënu ko génne ci raaw yenent yi kenn kenn mënu ko génne ci raaw yenent yi ndax lan seen maam ibrahima alayhi salaam ibrahima alayhi salaam itam wa huwa abul asbaat fa huwa tabaarakallaahu yi ci aj yëpp tabaarakallaahu bari na kon wa tasawaja yaqub mu mel ni kon gis nga yaquba alayhi salaam moom itam bi mu màggee eh, wa anjaba isnay achara waladan moom itam yàlla dénk na ko tabaarakallaahu fukki yenent fukki doom kon euh, ak ñaar waaw yaquba alayhi salaam bi mu màggee ba toll ci at yi nga xamante ni ku ca toll sa xel nekk na ci wut soxna moom itam ba mu wutee soxna sunu borom baaxee na ko te soxnaam soosu wala ñaari soxnaam yooyu ci misaal mu am ci fukki dom dal ak ñaar waaye fukki dom yi ak ñaar wax na ne kana asqaruhum yusuf wa Yamin. wax na ni ki ci gëna na fete ndaw wala bok ñi ci gëna na fete ndaw ci dom yoy di fukki dom ak ñaar modi yusuf ak uh, ki nga xani modi ben yamin kon kon euh day am luñ ci bëgg junju waaw ah, junj bi mooy wa kaana yaquba alayhi salaam yaatifu alayhima wa zalika li mawti ummihima wa zalik wa kazalika aydan li annahuma asqar awlaadihi mbokk yi fa tabarakallah ah, feeñ na ci yaquba alayhi salaam ku amoon ñeewante la ci eh, ñaari doom yooyu te moo di yent yàlla yuusuf ak euh, ki nga xam ni moo di benyamin ñeewante woon na leen lool ñu wax ni waaw ñeewante googu lu ko waraloon ñu ni ndax euh, li seen yaay génn àdduna bokk na ca ma taxoon mu ñeewante leen lool waaye itam bokk na ci itam euh, tabaarakallaahu ndax ñoo gënoon a ndawee ah ñoo gënoon a ndawee ci ay doomam waaw ñoo gën a ndawe ci ay doom loolu itam tabaarakallaahu gis nga boo yoree ay doom lu lu bari bari ñaare ñi ci gën a nekk tu tànk te mooy ndaw da am ci ñoom cofeel da nga leen di xaw a ñeewante lool kon loolu moo feeñ ci yàlla yaquba alayhi salaam mu bëggoon eh, yusuf ak benyamin ngir tabaarakallaahu li seen way jur génn àddina ak lan li nu gënoon a nekk di ay ndaw waaw ah, ñun gënoon nekk di ay ndaw tabaarakallah wa kaana saa'il abnaa'i min ummin uxra xayra umm yusuf wa binyamin mbokk yi gis nga tabaarakallahu wax nañ ne fukki doom yooyu ak ñaar juróom-ñeent yépp ñoo bokkoon benn ndey ñoo bokkoon benn baay wala fukk yi bokk waaye ñaar yi ñoom kese ñoo bokk ndey ak baay yooyu nin ko mën a misaale moo di yuusuf ak benyamin ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey min ummin waaxidin wa min abbin waaxid waaw ñoo bokk benn ndey waaye itam ñoo bokk benn baay mu yent yàlla yuusuf ak ki nga xam ne moo di benyamin di rakkam ñoo bokk benn ndey waaye fukki doom jees yi yëpp ñoo bokk seen benn ndey tabaarakalla loolu ay jàngat la yu am solo ñu ngi nuyu baax tabaarakallaahu Adja Ngoné Seck tabaarakallaahu ca amoo siis di sunu ndeyu daara ñu ngi nuyu itam bu baax fa tabaarakallaahu e, Serigne As Wade fële ci cité sant nag ku ñuy bàyyi xel la ku ñuy topp la ci suñuy émission waaye itam ñu ngi nuyu itam bu baax tabaarakallaahu sëñ Ndiaye Ndoye nekk fële ca amoo siis moom itam ku nu bàyyi xel la kuy topp émission yi la tabaarakallah mu mel ni kon fa tabaarakallah seen émission xasasul anbiya mi ngoog di waxtaane tey kan mooy yent yàlla yuusufa alayhi salaam gis nga li jàllagul rek ay bind yu am solo ay jàngale yu am solo feeñ na ci biir yaakaar naa lu mu gàtt-gàtt xamee nga ci ana kan moo di yent yàlla yuusufa alayhi salaam fa mu bawoo ak ni tabaarakallahu baayam nekk di yenant ak itam ni maamam tabaarakallahu nekk di yenant yooyu nekk ay jàngale yu am solo mbokk yi kon xam naa ah, danañu ubbi nag euh, ligne bi rek ci képp koo xëy bëgg nga jokkoo ak ñun ci 88 628 10 95 ci seen émission xasasul anbiya di ndokkel mbokk yépp tabarakallahu euh, di sàkku ci sunu mbokk jaaj yépp ñëm tabarakallahu ñaan ndax fi toll ni ñaan rek lana soxla ci sunu réew mi ndax yàlla wàcce fi jàmm ñu jël mbokk mi ci limbi bi asalaamaaleykum salaamaaleykum eh fa tabarakallah xamna ene eh, ci na jombul dina del wat tabarakallah kon ñi ngi sakku ci sunu mbokk ijaaj yépp ñoo di ci rew mi jamm eh, san ci ñaan kon san ñaan ci rew mi ndax soxla nañ li nga xey modi di te moy jamm mbokk itam soxna li nga xey modi di ndax febar yi bari na lool yéen xam ak yéen xamul yi feñ ak yi ak yi feñul te moy neub yooyu yëpp nag eh, ab julit bu tollee fenn fi la muy la mooy ñaan kon ñi ngi sàkku ci mbokk yi sunu mbokk yi demoon ci dëkk bu sella ba xam na ne luñ fa ñaan fii ak ñeen fukki fan sunu borom nangu kon yal na yàlla eh, tabaarakallaahu nangu leen te lu ñaani tam itam foofa yal na ko yàlla wàcce ci réew mi ci daraje yent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alxuraanu karim kon mbokk yi tabaarakallaahu feeñ na léegi ci eh, yent yàlla yuusufa alayhi salaam ni ko woy juróom bi bëgge woon ak ni mu ko fonke woon ak ni mu ko jàppe woon ak ni mu ko téye woon ak ni mu amee woon ci moom ñeewante ndeysaan ndax nit ñu gënoon nekk di ndaw ak rakkam boobu di Benyamin ak itam tabaarakallaahu eh, lii seen yaay génn àdduna loolu nekk ay jàngale yu am solo mbokk yi kon gis nga wala qad daani sayiduna yaquba alayhi salaam min kathrati al ibtilaat wa kana ashadda tilka al ibtilaa ma xadasa li ibnihi ma xadasa li ibnihi yusuf alayhi salaam mbokk yi kon gis nga yaquba alayhi salaam ku bari ay natt la ku bari ay natt la moo tax kon gis nga alquran di faral di wax ni eh, alif lam mim ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mu ne waaw ndax da ngeen di wax rek ni gëm naa yàlla gëm naa yàlla rek gëm naa yàlla te yàlla di teg ci seen kaw nag ay fitna ay natt yenn moo tax ñaare ki gëm ki gën a gëm yàlla gën a am ak taqwaate moo di ragal yàlla ñaare moom la ay nattum di gën a tar loolu boo ko xoolee ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daf ciy feeñ ay natt yu bari ay tolof tolof yu bari laam am mboolem yenent yi seeni natt moo gën a tar kudul yenent waaye mboolem saxaabi yi seeni natt mooy gën a tar kudul moom waaye mbooleem ñi gën a am cër ci yàlla seeni natt itam dafay tar lool mooy gën a tar moo tax léeg-léeg ñaare e, nga am ay jafeñ-jafeñ ay tolof-tolof kon lool feeñ na ci yaquba alayhi salaam ku bari woon ay nattu la ku bari woon ay nattu la waaye tam nattoom yooyu wax nan ni bi ci gën a tar ci nattoom yooyu mooy ñàkk gi nga xamante ni ñàkkoon na ko doom jooju jël mbokk mi ci bi asalaamaaleykum ah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, kooku sëñ Mouhamed Talla ah, Oustaz Abdoulaye Ndiaye ñu ngi ziar waa ñi ngi lay ziar ñi ngi lay delloo ziar bi wallahi kontaan nañ ci émission bi bu baax jërëjëf sëñ Mouhamed eh, ki nga jiital tamit ah, moom tamit bay na waaram mooy suñu maam bu baax bi mooy maam Abdoulaye Sy dëgg la dëgg la. xam nga kilifa ab kilifa lan laa mooy bay waaram rek. dëgg la dëgg la dëgg la. li nga war a wax nga wax ko li nga war a dox nga dox ko. Mhm, mhm. te yàlla xam ne moom tamit euh, réew mi so soxla na ko mel ni moom. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. kontaan ci émission bi bu baax. jërëjëf jërëjëf. wax dëgg nit yi na ñu ak. baal na leen yàlla boole jëggal yàlla boole baal fekk ay déw ñu bëri. amiin amiin tabaarakallah wallaay kontaan kontaan nañ ci émission bi bu xam nan ko baax tabaarakallah xam nan ko. xam nan ko jërëjëf tabaarakallah sunu mbokk moom mu génn sànq di Mohamed Talla nekk fële ca Kër masaar station Al Maktab ñu ngi koy ñaanal yàlla tabaarakallaahu gis nga comme li mu wax ci sunu maam jooju di maam Abdul Aziz Dabakh nee na sunu réew soxla na mag ñu mel ni ki ñoom wala boog mag ñu mel ni kooku bari nañ fi nag waaye nag laaj na rek kenn ku nekk bay sawaar